sëñ Modou Gueye diwaan si la. boo ñeme woon tey bu la neexee. Hmm. léegi man sama jëm nga ëpp ma mbooloo hmm. ah. moom bii boo jël sax moom nga jël ci boobu laa ñëw muy wàllum nopp. mais képp koo xam fi ne da am ne da nga bëgg a not. waaw defal mu def bàyyil ko amee la joxee li ma la jox génn guddi laa la may. ku xam ne bëgg a tubaab la nag tubaab karaw tubaab am naa ci lu bari mi ngi ci kaw. karaw tubaab ak kayitu journal ak karaw nit ku ñuul. Mhm. donc aliwa yi xànjar ci lañ koy bind. Mhm. kayitu journal mooy informé. dégg ngeen ko nee na ku bëgg am alal ju bari te doo fi nekk di takk di naan di yooyu kéwal la lewut. moom yaa ko yaa ko a mhm. nangam rek mu ma yow lan la. mu ah. soit muy ku góor ki wala ku jigéen ki ñoom daal yéex am doom daal bay jot ay information mbedd yi di lu leen neexul ñu bëgg ci mucc. kon déggeen ko élèves yi ah, ku jubbati concours bag yeeg yooyu. BFM muy indi carte mariage. ñe paquet bi rek lay indi bu ko indee laaj sax. léegi day jaala ci force. nekk bitim réew nag nga xam ne que kii tëna ko ak ki bëgg a dem surtout ki nga wax ne visa bi ku na ki bëgg a dem ak ki fa nekk bëgg kii. Mm-hmm. heure boo a lijjanti. Mm-hmm. soo ma indilee sa passeport fii ma téye juróom-ñaari fan. xam waxuma la nag ay France Amérique fu la neex dama wut. ay Canada fu la neex. Belgique ak Mauritanie. bu neexee yàlla ci kàttanu yàlla. fi ma toll nii bépp ndaw boo xam ne may nañ la billet. waaw te xam ne liggéey dong la ñor. Mm-hmm. ajuut ma lay xam ajuut ma lay ñàkk xam. Mm-hmm. yàlla xam ne heure boo ñëwee tabax ko te muy dëgg. Mm-hmm. bu fi njëgu billet nekk ma jox la ko. karaw tubaab. karaw tubaab. ak euh, siki. ak xoromus géwél. xoromus géwél. boobu moom boo bëggee bayre ak ubbeeku. yoo xam ne moom man damaa yu garaaw yoo xam ne moom koo jox loxo boo ne defal mu def. Ah! waaw te yooyu. léegi <laughs> ah! kon am na ñu loru ci dëkk bi ba wutul yaa lor. ah déet man moom. <laughs> Cheikh Cheikh mu wax garaaw na de. tamit moom boo boo ko bu joxe moom lay joxe. boo ànd ak nit bu la neexee fii ci salle bi nga toog xaar ma. mu ma yéeg fas li fas su neexee yàlla bu ma ñëwee. Mm-hmm. su ma la joxee boo ne ko tegge sa loxo boo ne ko defal mu def boo ne bàyyil mu bàyyi. dañu émérite yooyu da nga koy faj. émérite du ma faj ndax moom mooy bëgg a siti ah, <laughs> parce que gis nga yëngatu rek moo tax ma laaj la. waaw du ma ko faj ndax moom mooy bëgg a rey ndax toogaay bi may toog di wér.